Elhadji Ousseynou dal leen ak jàmm ci xibaar yéene kaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo alhamdulilahi rabil alamin mu mel ne nag mu njiitu mi président de la république Macky Sall dina lancé googoleeg opération bu ko defee rek ñu daal koy mën a wéyal ci réewum Sénégal fekk jamono jooje yéene kaay gi duñu xamal ne nag jamono ji ni nga xam ne moom la covid 19 bi duggee ci réewum Sénégal ndax de am na ay marché yu bëri yoo xam ne rek jot nañu ko te yii ne gi duñu xam jàngoro ji nii nga xam ne rek noonu lay tasaaro ak cas communautaire yi ni nga xam ne rek noonu lay yokkoo ni mu leen jaaxale yii ne gi di laas dinu xamale guerre kay jamono ji ak lu ma xew <laughs> jamono ji tax na nag gouverneur bu Dakar daal jël ay matuwaay yu mat sëkk ndax askanu Sénégal ñii nga xam ne rek am moo di jël géewgal ak matuwaay ngir di covid xamale bu dee nag lu jëm ci wàllu trafic bi maanaam dem bay dikk bi ci wàllu oto yi ma ngay gën di way yéen kaay gi duñu xamale am na ci yenn dawalkatu oto yoo xam ne nag tey jii lañ ko gën a tey yii nga xam ne rek noonu la koy jaarel eh dina xamal ne ak fi ñu toll ci faj jàngoro covid 19 ne donte nag faj ga jamono ji réewum Sénégal nga nga xam ne rek ñoom la faj tamit bari lool fekk jamono jojee ministre bi nga xam ne moom lañu dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu wér gi yaram ne ma Abdoulaye Dakar moom mel ne ku naan leen ŋàpp wuj nag def leen nànk man kay fi mu toll nii doolu ma ci naan la ñuy faj ak nii daal xeex bi daal ñu ngi koy wéy ak ñi ngi yéenekaay bi sës ko rek ne ko waa chloroquine bi nag mu ne chloroquine bi kay ña nga cay gis ay résultat ndaxte maladie yi nga xam ne rek ña leen koy jox ña ngi yëg taan bu baax